barkeelu ay kàddu ci ñoom dafay jaadu ndax donte ay fan la sax mbaa ay guddi mbaa ay at ànd nañ ko suñu sang ba Serigne Béthio moom Serigne Saliou ñu waxtaan ak ñoom ci bisu màggal gi ak fi yëf yi ak gan ñi soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ko daaw yàlla kattanal nu ba nu fekkewaat ko ren wàccaayu màggal gi ak bu màggal gi teroo lan ngeen di yëg yéen ñi àndoon ak sang bu baax bu tedd ba Serigne Béthio. waaw ah, li may li may njëkkee mooy sant Serigne Saliou Mbacké di sant Serigne Béthio mi nga xam ne moo waral lii ñu sant bu wér di sant Serigne Sall ndigal nga xam ne mooy suñu xalif di ñaan bu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne Touba barke màggal gi moom de tànk yi nga xam ne moom la sëñ bi ci ne woon ci la ne man de am naa maanaam rafet njort ne day yokk rek tànk kanamu sëñ Tuubaa ma xam naa ne day am ndax feeñ na ci lépp ci mbooloo meeg ci nag yeeg ci lépp ci bernde yi donc ñu ngi sant bu baax fas yéene ànd ak moom sëñ Sall digal ko waaw loolu ñu gis at mu rek ay mbiram di gën di yokk mu mel ne ay mbiram Serigne Saliou jàpp na ci waaye Serigne Touba da koo teg loxo. waaw waaw loolu laa doon wax léegi li sëñ Béthio bàyyi woon li fi sëñ Béthio bàyyi woon da koo yokk wàññiwu ko te day yokk rek comme li ma wax léegi rek euh, tànk kanam sëñ Touba la rek maanaam yokku maanaam tànk kandam yi nga xam ne démb li woon démb tey da koy fuuf fuuf démb bu ëllëgee da koy gën a yokk loolu lañ gis ci fii loolu lañ daan gis ci sëñ ba aussi moom daal yokkute lañ gis te ñu ngi ci màggal gi li nga xam ne mooy ndigal li maanaam bernde ren xasaay jàng kaame nekk daal ci ndigal sëñ loolu mu mel ni la ko sëriñ Béthio way juróom a bàyyi loon daa yokk waaye wàññeekuwul loolu laa wax léegi. naa dafa yokk wàññeekuwul feeñ ci mbooloo mi feeñ na ci nag yi feeñ na ci bernde yi ci lépp moom dama mbirum sëñ Béthio tànk kanamu kanam rek lay def moom la loolu tax moom ngërëm fu sëñ Béthio yemoon mu ci kanam. waaw soxna kan mooy sëriñ Béthio. ah sëriñ Béthio de. seexu Serigne Touba la Serigne Béthio de mooy Serigne Saliou jëloon léppam jox ko Serigne Saliou jébbul ci moom bokk muy tout tànk 1946 ba léegi yàgg na ñu moom ànd moom mbiram di wéy di gën a yokku ba nii te mbiram du fay mukk waaw mbiram bu fay bu ànd ak moom li ko topp ci watiir watiiru fas ba boobu xamuloon ko sëriñ Saliou loolu ñëpp xam nañ man de yàlla dafa maa baaxee sax mbirum di seen aram bi fee feeñee ci ci man mii la ko sëñ bi wax di bi man du ma ci sant rek war naa yokk bu baax sëñ Béthio ñu dañ koo tiitaloo man bu ma fu may dem ci lañ may xoolee dañoo xam ne dañ may gis ñu xam ne sax maanaam du leen xam sax ñu ñëw di ma siyaare donc man xam naa mbiram bu fay may mbiram du bii mu am day yokk waaye du wàññeeku waaw loolu laay gis. lan moo la gën a marqué ci Serigne loo xam ne mënutoo koo fàtte. bari na de bari na de maanaam bëggam Serigne Touba ba yemale ko dara. sëñ Ablaat ne ko ci cër yi sëñ Touba lañ ko mooñaale mu jàpp ci sëriñ Saliou yemale ko dara borom gi ci sëriñ Saliou bëgg bëgg waaw nag yu bëri yi mu daan di yeew nga yeew nga xam moom moo ko fa def ne ñaa ngi jéem bëgg Serigne Saliou rek man daal loolu laa si moom bëgg Serigne Saliou boo xam ne fu ñu tuddee Serigne Saliou tudd sëñ Bédio xam ne daal di sax xalaat Serigne Saliou sëñ Bédio rek xalaat Serigne Saliou di sant nam sëñ Xaadim Ngom Xaadim Ngom moom kennaloon ko moom tamit te bi muy gonee ginnaaw taxul mu wàññeeku dafa yokku daf koo gën a yokk wàññeekul benn yoon man ak soxna Boose mii ñoo ci ànd muy teral def ñu ndeyam moom sëñ Xaadim Ngom luñ manqué wuñu dara sëñ Saliou mu ngi ñuy mu ngi teral sëñ Xaadim Ngom mu ngi teral suñuy doom ñu ñuy teral maanaam suñuy doom mooy njabootu sëñ bi samay doom bokk ci doomu soxna Boose bokk ci donc ñun ñi ngi sant bu baax daal waaw di ñaan daal moom foofee mu ne moom sëñ Béthio yërmande yërmande sëriñ Saliou ak sëñ Béthio fekk ñu fii ci barke sëriñ Tuubaa lu ndigal mel si yoonu murit ndax lu mu am ndigal ko may sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou ànd ak moom sëriñ mun ànd ak moom sëriñ Saliou ndigal nu digal mel ci yoonu murit ndigal kat mooy yoonu murit ndigal moom mooy yoonu murit boo newul ci ndigal est-ce que murit nga ah, ah man man pour man boo nekkul si ndigal doo murit de loolu daal laa ci am waaw sëñ Muntaxa mooy moo yor ndigal li mooy digle mooy bàyyi sëñ Muntaxa ak neex ji ah. di yàllay kese di sëñ Tuubaa man daal ndigal daal mooy yoonu murit bu newul ci digal man xamu ci loo nekk waaye ndigal mooy yoonu murit charisme bu sëñ Béthio kat ñëpp gis nañ ko en tant qu'administrateur civil mu dem ba feeñ nii ci mbirum mouridisme waaw ak jëfam jëf jëfu sëriñ Béthio générosité am bëgg taalibe bi bëggam sëriñ Saliou ah loolu de moom laa loo xam ne wax dëgg yàlla gisuma ko fenn jërëm du fay mukk du fay mukk ak sëñ bi bu baax di sant soxna Boose nii bu baax parce que moom moom mii ndax mën nañu sëñ Béthio dem ci Zahir ñu sax teqalikoo waaye lu ñuy def ñoo koy defandoo moom nii amul séparation suñu lu ñuy def ñun ñaar ñoo koy àndandoo waaw ñoo dëkkandoo ñooy àndandoo lépp demante dëkkatuñu waaye ñooy demante di ñëwante waaw te fas yéene ko ànd ak sëñ Sall bi si suñu muy suñu doom ba pare doon maanaam xalifu famille bi xam nga ñu nangu ko lool ñu nangu ko lool nag li ci mooy bu Serigne Serigne Béthio dellusiwaatoon du ngoon defar seen toogaay ndax moo leen boole. Serigne Béthio loolu la bëggoon àndandoo la bëggoon unité sëñ Béthio bëggul ku mer bëggul ku xuloo bëggul rek la doon bañ moom si boppam sax boo ko xawee may sax moom mooy ñëw di la neexal. li ci la jàmm rek la xam. ba tey ñu ngi fii ci jannatu Maxwa rek toog ak kenn ci ki nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Béthio di jàmbaar yi. ndax li ma naan yoonu lislaam jigéen a njëkk a jaayante def ci loo xam ne dootul fay kon bu ñu fekk see soxna Mboose mu àndoon ak Serigne Béthio ànd bu rafet àndoon ak Serigne Béthio and jullit àndoon ak Serigne Béthio àndu taalib ak Serigne day jaadu ñu laaj ko soxna Mboose ñu ngi lay nuyu jëlee siyaar ñu bàyyi nga duyoo jëlee seetaan. asalaamaaleykum. ñoo ngi di siyaare sëñ Seex suñu sëriñ siyaare sëñ Saal ñaan ñu yàgg fi loolu te wér ci barkeb sëriñ Saal ak Seex Béthio soxna Mboose su màggal gi coro bay toog si fii bi nga tàbbi ci pénc bi te gisatoo leen suñu sang ba seen sang ba lallay def ci yéen ah sëñ bi gaa bu fekkoon taawam bii doon ko mu am leneen lu mu demee kon ñun dina am lu mu mel ci ñun waaye bu fi bàyyam jóge ba tey amuñu dara lu ñu dara lu koy xalaat ñu fi sëñ Béthio nekkoon loolu amul. seen digganteeg Serigne Béthio. ah sant rek sëñ Béthio kenn du ko ma ci laaj bu kan mooy Serigne Béthio. Serigne Béthio kenn la kenn képp la amul remplace moom kenn dong la. lan moo la gën a marqué ci Serigne man ah li ma marqué li ma ci gën a marqué bari na waaye ñu ngi sant Serigne Touba ndax ñun dañu ay taalibe ay cantaakoon mu yar na dañoo yar man soxna ay sami maa ngi koy nuyu ñun dañoo yar ba lu fay jógee danoo yar bëgguñu dara kenn namuñu dara wëruwuñu dara soxlawuñu dara lu ñu bëgg ñu ngi koy am daa mel ni mi ngi fi amul sax mel ni ñun fu nu fu nu kii rek xéewal yaa ngi ñëw moom dafa man kanamam man ginnaawam. waaye taawam bu baax bi taxaw taxawaayu baay seen digganteeg moom. sant ko nag sant Serigne Saliou sant Cheikh Béthio Thioune kii dañ ko yar dañ ko yar kii xamul xuloo xamul mer xamul dara bëgg ay rakam bëgg nañu ndeyam yi ma nag soxna ay si kii lu may wax ci moom kii kii kenn képp la góor pire la noobal la kii noobal la atte la dëkk nañu ñaar fukki at ak nangam kenn mësuñu atte man ak moom mësuñu atte kii dafa baax dafa yor njabootam boole sama njaboot man dama njaboot mu uuf njabootam uuf sama njaboot sëñ Saal nag moom mënuma koo fay sëñ Saal mënuñu koo fay ndax sëñ Saal lu fi baayam doon def rek mi ngi koy def jooyu baayam yooyu ñu ko sant nañ Serigne Saliou sant Cheikh Béthio sant borom ndigal yàlla ngeen mucc ah yàlla ngeen mucc yàlla nañu mucc yàlla nañu gudd fan soxna Aïssa yàlla na gudd fan ak njaboot gi yëpp maa ngi nuyu sëñ Xaadim man li ma li saa di seen ànd li ma ci dàqal mooy cofeel gi maa ngi nuyu sëñ Xaadim di sama goro di sama kàrjalo sunu goro bi sunu docteur sama cardiologue moo jël sama caat ba fi sëñ bee ci jógee ba tey mi ngi ñuy toppatoo mi ngi ñuy dimbali mi ngi ñuy jox ci wërsëgam li mu def fii fii ku fi taxaw rek sa yaram daw 650 madame loolu amul fenn fii dong la te boole wu ko ay wax ak yeneen ay waañ ak ay dal ay dal kii dañ koy ñaanal rek fan yu gudd nee naa ko doom mooy baay. Eh, doom mooy baay de. la nga woon baayam toppi ko kii doom mooy baay. barke boobu moo wàcc sëñ Saliou ndigal ndax doomay baay. doomay baay ñu ngi sant ñu ngi sant. soxna sa doomay baay. moom mii mooy baay. moom mooy Serigne Baye. ndeysaan ndeysaan. jërë ngeen jëf yàlla